képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci seen bi rek di Mbacke Kadior TV lu ñu dugal ci dana ko am en exclusivité benn fant rek des ci ngir ñu amal màggal poroxaan di bis bi ñuy fàttaliku soxna Diarra Bousso way juru Serigne Touba si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbokk taalibe yi di bàyyi ko fu nekk ngir dëkk mën dëkk bu tedd bi di poroxaan fii ci Touba ci jumaa ji ci buntu kër Serigne Abdoulahan Mbacke mbooloo mu takk nekk fi